Bismillahirrahmanirrahim. ñu ñëw ci njàngaleem juróom fukk mi sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaarloo mas nay waxtaan ci tukkital àdduna bay wax ni sunu boroom ak lëndam lay njëkk andi ba nga xam ni kenn du xàmmee lu ko jige ak lu ko jigewul ngir lëndam gu tar ñi dese ak ngëm sunu boroom da leen di ber foo xam ni ab xiif moo leen fay jële mooy rey mu yabal yaa jooja ak maa jooja ñu bàyyi koo saw wuti penku lu ñu weesu mu woo kong siiw na sëriñ tuba xaade lahoo law maxtaar lahoo nee na jaamu yépp fa sunu borom jébbalu gën noppale mi ngi mel ni ku satal ak ndox ñëw ba ci koo xam ni daayoor géej ak i teen ak dex nga jox ko ko mu sotti ko ca ni la foo fekkati ndox saam ndoxo ki nanguwute jébbalu mooy ki yor ndox attanu ko joxe te bëgg sangu bëgg a fóot bëgg raxas siiw na am na bis Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo di waxtaan ci Seydina Abdul Xaadir al Jaylaaniyu radiallahu taala anhu ba wax ni way juróom wu góor jaamukatub yàlla la woon bu mag way juróom wu jigéen itam ku toppoon way juróom wu góor la ba tax mu juddu ca mel noonu mu mel jili de njanaaw sunu boroom da koo yebal ci géejug leer ga ba mu ne caw muy dugal bu gaaw sàll wa ba mu ne caw sàll wa muy gimiñu njanaaw daa daanoo ndaay ba tax ba tax muy wax loolu muy wax xëy na wax yu rëy yi mu daan wax la ci jublu mel ni li mu wax ni wa amri bi amrillahi in qultu كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي ak lu melni mulki akbaru min mulkillahi wala alam àgg na ci bis ab taalubeem faatu ñu tàggee ko mu ni loolu mënuta am ndax yëgu ko bi mu xamee ni faatu na dëpp malaaka dëpp béjjën ba keroog ruu ya ca faatu yépp dañoo dekk jiili def na loolii xam ngeen nu ñu demee man dama samp sama wenn sàll ci suuf samp wacca des ca kaw asamaan naanal sama bopp bàyyil sama bopp siiw na sëriñ tuuba xaada law maxtaar na umdatu diini hindana kalimatun arbaun min kalaami xayril bariya itaqi shubuhati اتق wa dama laysa yani ka wa amalan na lool lol wayi ni la tollu motax ma andiko yena dina ñenti keno la am bayilu lent deddu aduna bayilu la amalul njariñ tey jef ci yene wala alam sëriñ tubaa xaadalaw law maxtaloo neena amma isa sahabta lillahi ahad فقبها الفوس مع الحمد أبد آخر صحبة لخير الله أني أرجه إلى إلهي ويرنا لول وي مؤمن نيلا تول نينا أند بو يالا تخ أك مجم موي الحمد لله رب العالمين أند بو يالا تخل أك مجم موي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا أعلم سرين توبا خاد له الله مختار له نينا xasida gi mu tënke chakooru rafion ku ko mokkal ñu damu xali mag ay bàkkaaram ku ko jàngal ko faatu ñu jéggal ko siiw na ñu ci njàngalem juróom fukk mi ak juróom benn sëriñ tubaa xaadi lawo law maxtaar lawo nee na xasida ak sulamul wusool ku koy jàng yonente bi salallahu taala ali bi alihi wasabi wasalama day teg loxoom ci sa bopp ba nga noppi xëy na dalee jige la bëgg a wax walaw ahlam wér na sëriñ Tuubaa xaadala law maxtaarloo bi mu taxawalee daare kaamil da caa def ab lal def ca am mbàjj akub darab wut ak kaala ñu di ca dugal kaamil ba di ko teg ca kaw lal ba siiw na mel na ni gànnaar la ko njëkk a taxawale walaaw alam am na bis ci njaareem am séeréer bu màndi dox ba ci pénc mi mu daanu faatu fa sëriñ Balla Faadi radiyallahu taala anhu ni bala ci kenn def dara nañu ko yegal borom penc mi ba ñu ko waxe serigne touba xaada loxo la maxtaar loxo ak ni mu demee ak seenu jaaxle ci mom serigne bi ni len ni leen ma fof daa di andi fukki metare perkaar ak li libé ak litre sikki ni leen bu ngeen demee ni ngeen ko def ni ngeen di def kenn ci yeen bu fi jóge won ni ngeen ko taxaw te bu ko gone laal bu ngeen demee ni ngeen ko sang ba mu set ngeen turu ko sama gëtt gii sange ko sama càngaay lii yóbbu ko fa jàkka joojee ko yóbbu ko ca armeel ya. mu dekki dekkee àjjana di àjjanay e gàcc sëriñ bàll far radiallahu anhu ni man de waaru naa sëriñ tubaa xaade la wala maxtaar ni ko moo la waar mu ni nekate nekkate àjjanay e amna am na sëriñ bi ni ko waawaaw ndax wu ko ñaanu ko jëfu ko xamul lu ko ca yóbbu dana dem àjjana te du xam lu ko ca yóbbu dem leen defar ko bin bi bi ñu delsee fekkaat serigne touba xaadaloo law maxtaaloo fu mu toogoon jugo mu ni leen suul ngeen ko ñu ni ko waaw serigne bi ni xanaa kenn ñaanalu ko ñu ni ko aha kay ngir yaa waxoon def loon ko ni ngeen di def seen bopp moo tax ñu ñaanal ko sëriñ bi ni mëtu ko woon mëtuma caa dimbale ne man naa ko waaye koo kii li ko may àjjana penc mi ci boppam am na téeméeri at ba muy téeméeri yoon loolu nu muy war a toll ci limub ay at sëriñ mbàkke juuf radiallahu taala ni ko yamoo naa fukki junniy at sëriñ tubaa xaadi loxo law maxtaar loxo joxoñ ko baaraamam bu tedd ba ni ko yow moo mi yaa ko xam téeméeri at ba muy téeméeri at yoo xam ni kenn jaamu fi yàlla saa borom yabal ab jaamam mu di ko fi jaamu di ko fi jaamu pàkk yi ci àdduna yépp pàkk mooy bërëb bu ñu doon ay mbër muy kuy bëre di bàkku dana tëb moom suufu njaareem ci seen biir te benn pàkk du ko dëkk mu ko féete kaw xëy na tuubaa maa ko tànnal saa bopp fii saa borom moo ma ko tànnal tànneefig sunu boroom yemut ak dara pénc mi moo texe moo waral ku fi faatoo texe képp ku faatoo ci dëkk bii ñu teg ko ci buntu jàkka ji jullee ko yóbbu ko ci armeel yii malaayika du ko laaj dara maadiw layam wér na lool ñu ñëw ci njàngaleem juróom fi bi ak juróom ñeent sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaloo am na ku mu masa laaj téere booy jàng mu ni ko téereeb ibnu duraydin mu ni ko ku la koy jàngal mu wax kook sëriñ bi ni ko daana la sànk ak dundam sànkaale sa dund demal jàngi risaala te jaamu ji yàlla wér na lool loolu sëriñ bi wax dañuy xamal bu baax ni nit bu nekk daa war di xool li ko tax a jug muy jëf la ko koy may mel na ni ki muy wax lii lañu ko tànnal daa bokkut ak loolu moo tax wax ju nekk am na ñu ko tax a jug walaw alam am na naar yu féete woon ci jàkk sëriñ Touba xaada lawoo la maxtaarloo ci njaareem di ko bale di ko bay di fa fanaan am na benn bis sëriñ Touba xaada lawoo la maxtaarloo jox ko ab lim ci xaalis ni ko dencal ma ko demaat ba mu yàgg mu joxaat ko ab lim ni ko dencal ma ko ba mu mujj leeral sëriñ bi ni ko amuma fu ma ko denc te bëgguma mu réer sëriñ bi ni ko dénkee la ko dees la ko lewalal daldi woo mag ne ni sëriñ moor halima radiallahu taala nu sa jigéen joojee ñuy wax faati nañu ko mooy naar bii yàlla saa boroom santaane na ko wér na sëriñ ma jëmm si la radiallahu taala nu nee na danoo jàng ba àggal sëriñ Touba xaadalaw law maxtaar law ni ma am na bant bi jaaroo xasab la sëriñ Touba xaadalaw la maxtaarloo ni ma am bant bi ñaaru xasab la tar xëy na soo demee ca kàdd gee kàdd xeetu garab la ma digal la na nga koy def demal ba fa tolloog teen ba nga taxaw fa bi mu ko defee am kaneen ku nekk ci wetu sëriñ bi di ko jottali li sëriñ bi wax sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ni ko tegal bant bi ci taatu kàdd gi mu teg sëriñ bi ni ko natt ko yaari yoon mu def ko sëriñ tuba xaadaloo la maxtaaloo ni ko poof yi nga ko yamale natte ko ko yent yoon mu def ko sëriñ bi ni ko na wër yent yoon mu wërale ko yent yoon sëriñ bi ni ko dikkal mu dikk lii day nuru yaatuwaayub am néeg sëriñ bi ni ko danga ko wërale ni am sàq mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko déedéet am sàq boo demee jàkka na def ñeenti ponk ponk bu nekk ak moroomam ne ñeent bant bii ba mu àggale sëriñ tuba xaadalaw law maxtaloo ni ko nañu ko alañ xëy na mooy setal ba du far demal ca bàllfaali radiallahu taala ni ko na ko suturaal te bu ko suturaalee ba noppi na amu. ubéer ubéer buntu ubéer ba na ko wutal doom mooy caabi jox la ko nga yin ma ba mu ko ko joxee mu ni ko tubaar kàlla am na ñuy wax tubaar kàlla ba tey wala alam ba ñu amee ay fan sëriñ bi dikk ab yor-yor dugg ca jàkka ja toog gisul kenn ne tuut am ku mu seen ni ko kaay waay ni ko xam nga ma mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko xamuloo ma mu ni ko déedéet sëriñ tuba xaadaloo la lahoo maxtarloo ni ko demal ca boroom kër gee boo demee nga ni ko ka nekk ca jàkka ja nee na nga wuyu ko mu woo ko mu ñëw sëriñ bi ree ni ko gis nga koo kii la woo mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko dama ni ko xam nga maa mu ni ma déedéet ma ni ko xamuloo ma mu ni ma déedéet ma ni ko mas nga maa gis mu ni ma déedéet ma door koo yónni fi yow demal wol ma sa nijaay bàll faali demal wol ma aafiya tàmbali di woote ba ñu bari teew sëriñ tubaa xaadalawoo la wala la ni dama bëgg nu daloo sunu jàkka ji tey nanu ko daloo tey dégg ngeen ñu ni ko waaw mu dugg julli ñaari rakka ànd ak mbooloo ma ginnaaw lii mu tàmbali ay bis mu tàmbali ay bis bu nekk mu ñëw fa julli fa yor yor ba mujj mu wax ni ko faatooti nañu ko yóbbu fa jàkka joojee xaafiyatu jullee ko bu ñu ko jullee yóbbu ko ca armeria amul laajte maa dib laajteem man la ñuy laaj ma diw layam dégg ngeen ñu ni ko waaw wér na ñu ñëw ci njàngaleem juróom benn fukk bi ak ñaar sëriñ tubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na boroom maqaamaatul xariiri radiallahu taala anu lu tonni limu maqaama yi la am pasun boroom wër na juróom fukki maqaama walaahu alam sëriñ tubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na walisina jaahadoo fina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ni dañuy wutunu boroom ñooy ñi nga xam ni dañu koy wut ci ku ne di ko wut ci ku ne di ko wut ci lu ne su ko defee sunu boroom ni leen maa ngi nii yegg si leen siiw na jamono pestu ba am na soldaar boo xam ni daa bokkoon ci ñi ñu andi woon njareem mu mujj jébbalu ci sëriñ tuuba xaada la wala maxtaar la am na bi sëriñ bi génn ci buntu saw bi mu di ko bëgg a nuyu di dindi la mu takkoon mel ni li nekk ci seeni yére wala lu ko nuru sëriñ tuba xaadalawo law maxtaarloo gis ko ni ko mamadu ni mamadu mee ni mamadu moomee nee leen ko loolee mu yor na ko takkaat te agsi sëriñ tuba xaadalawo law maxtaarloo gis ko ni mamadu moomee nee leen ko loolee mu yor na ko takkaat mu takkaat ko agsi sëriñ bi ni ko loolu yi dee ko yore saa boo ko yoratee rek ñi ngi lay bindal aw yiw ba keroog nga koy dindi wér ne lool xëy na digal gi mu ko ko digal moo ko waral wala muy liggéey gi mu liggéey ba ñu fayee ko ko ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na am na ci bàkkaar yoo xam ni parlu ci sàkkuli lew moo ko mën a far walaw alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarloo am na jamono yoo xam ni ku dikk ci moom di bëgg a jàng danaa la demal diisoog waa joojee Cheikh Ibra Fall lay wax boo ñëwee ci moom mu ni da ngay jébbalu wér na ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak juróom benn am na bis Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo di wax ak maam Cheikh Ibra radiyallahu taala lu yàgg mel na ni dañuy wax ni mooy seen waxtaan wu mujj ba mujj mujjug taxaw ni ko lii mooy sa wàll te mooy fi mu toogoon mu daa di sol suusa ci saako wér na sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar loo am na ci taalube yi ku masa wax ni daa sell waaye moog ñëppayam ginaar ak i cuujam lépp maay fay siw na daa mel ni kookee da daan moytu haddiye yi ñu koy jox ngir ak mbaanoom wallahu a'lam amna gone gu serigne touba khadalahu law maxtalo massa wax loy wut muniko kesama ko ki sama baay doon siar la bëgg siar serigne bi niko ko ni talala talalal say loxo ma ñaanal la siwna li lii ko gis da nga xamni ak gatandu la ndax booba serigne bi xatna lol bama ba mag waru ag mën alam serigne touba khadalahu law maktalo mas naa wax maam cerno radiallahu taala anhu legi nga noppalu aduna mala la ci saña woo te legi dotuma la woo siwna ñew ci ne talib jurom ñaar fukk bi am na gone gu ma sa ñëw ci kër serigne touba khadalahu law maktalo te way jurom yeguko ko ba ñu koy seet ba fekk ko ci kër sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaloo sëriñ bi ni ko dellul boo demee bu ñu la dóor wér na